jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 euh, di ñu déglu yéen sunu mbokk euh, auditeurs yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu am mbégte dellu siwaat seen émission pencum réew mi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu dellu am mbégte invité Bruno D'erneville mi nga xam ne mooy leaderu euh, parti pour l'action citoyenne euh, moom la ñu invité tey fa seeni waxtaanee euh, lépp loo xam ne rek jëm na ci actualité ci réew mi maa ngi lay nuyu Bruno Derneville asalaamaaleykum Abdou Khadra maa ngi lay fay di nuyu waa réew mi FM yëpp ak seeni auditeurs yi. jërëjëf Bruno Derneville <laughs> bala ñuy ñëw ci actualité bi il faut ñu laale aussi Derneville Euh, ndax sant bi dafa nekk sant boo xam ne léeg la ñu dégg ko mais dafa xaw a raar aussi ndax mën nga si joxe tuuti explication pour sénégal yi déglu mën a xam euh, fan la soqi ko <laughs> waaw derne bi bëri na ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe pour pour wax ko sax moo tax ñu ci bëri monsieur Bruno lañ lañ may wooye uh-huh. <laughs> ci sama département bi fale fu njuñ sax ñu ci bëri euh, fu ñu ma gis Bruno lañ ma lañ ma gën a xamee uh-huh. Euh, waaw euh, Derneville nag sant sant bu yàgg la ci Sénégal ndax depuis de depuis mille sept cent euh, et quelques ci le premier Derneville bi ñëw fii sanc Sénégal waaw takk ay sénégalais sénégalais yooyu tamit takk yeneen i sale sénégalais kon fi mu ne nii am nañu fi ñetti siècle waaw euh, Bruno Diatta nekkoon fii nit koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ndax mu ngi woon pale ah ci même famille bi Bruno Diatta maag moom ñoo bokk turandoo rakku yaayam lañ ma tuddee. ah bon te rakku yaayam Bruno Derneville la tuddoon kon euh, muy Bruno Diatta yaayam. Derneville la sant. Mm-hmm. kon mbokk nit ñi xamee ko noonu. Euh, général Jean Alfred Diallo ci Derneville yi la bokk. Mm-hmm. Annette Mbaye Derneville foog naa nit ñi xam nañ ko Jacques Derneville nga xam ne moo jote woon ak Demba Diop moomu Euh, ñu tuddee stade Demba Diop kooku Jacques Derneville moomu ci suñu famille la bokk itam amoon nañu ay maire benn maire boo xam ne euh, Antoine Derneville la tuddoon euh, nekkoon Ndar moom bokkoon na ci premier maire yi nekkoon Ndar kon amoon nañu itam koo xam ne mu ngi woon gore nekkoon fa kilifa bu mag ci jamonoy colonisation kooku itam Derneville la santoon kon Derneville famille bu bu yàgg la ci Sénégal te ñun dañu yaree ci bëgg suñu réew bëgg suñu askan. waaw ñun nag euh, euh, suñu maam yi yenn suñu maam yi ay tubaab la ñu woon. waaye foog naa ne métissage moom yàgg na ci àdduna. Euh, ñun li ñu soxal tey mooy nekk une famille boo xam ne dañuy participer ci suñu réew. participer si ñun développement. Ah, Bruno D'erneville yaa ngi dëkk ci département bu Foundiougne pour ñuy déglu aussi day baax ñu xam exactement fan nga dëkk ci département bu Foundiougne wala ci biir Sénégal. waaw euh, maa ngi dëkk ci euh, dëkku Foundiougne euh, bi nekk ci biir département Foundiougne mooy chef lieu wu département Foundiougne li tax nag ma taamu funjuñ mooy sama maam ki jur sama sama sama baay kooku kenn rek la meññoon muy sama pàpp kooku faatu Gueye la tuddoon soxe ko Foundiougne cosaanam yépp nekk funjuñ d' accord euh, Bruno Derneville euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax su ko defee ñiy déglu rajo Rewmi FM euh, mën a xam euh, kan la ñu invité yow nag yow yaa jiite parti yaay leaderu parti pour l' action citoyenne ñu ñëw tuuti aussi ci ci ci parti bi ndax nit ñi xam aussi parti bi nga xam ne moom nga taxawal parti bi kañ nga ko taxawaloon. waa jërëjëf Abdou Khadre question bi am na solo euh, te damay euh, kontaan lool ci euh, ni nga ma ko posé ndax bari na fi mu ne ay journalistes yoo xam ne boo fay dem li ñu leen di intéressé mooy rek lii kii wax ak la kale wax loo xalaat ci kii loo xalaat ci kale waaye yaa ngi may wax question boo xam ne am na solo te.

ah ñu ngi def ay proposition mais ñu ngi surtout def ay jëf gis nga ne ci bu yàggul wax nañ fi ci problème mu waa Fambine ay jeunes yoo xam ne euh, pour ñuy dem école dañuy obligé di xuus ci ndox mi seen di daanu di gaañu xëj na sax am na ay jaan yoo xam ne ñu ngi leen di fay jàpp ak demee noonu te ñu leen bàyyi ci seen jafe-jafe yooyu rek euh, bu yàggul itam euh, Ndramé Makumba wax nañ ma fa ay jafe yoo xam ne nit ñi dañu ko amoon bi ñu defee tali bi pour mun a jéggi tali bi pour dem si hôpital yi te ci ginnaaw yi ay dëkk ki dëkk ñoo fa ne ñu ñu joytu ko seen député joytu ko seen maire joytu ko seen président département kenn yënguwul ay atti ki atti ki at Euh, man mii ma def rampe bu yàggul nii boo xam ne ku dem ci yoonu Sokone bi di nga ko fa gis euh, def naa fa sax éclairage pour saret yi mun a jaar gars yi mun a dem faj seeni seeni nit ñuy am jafe-jafe dem ci seen tool yi itam uti seeni seeni seeni mbéy yeeg yu mel noonu kon foog na ne yooyu ay action yoo xam ne day wane ñun ñooy kan day wane lan mooy suñu yéene ci suñu askan te loo loo xam ne dañ ko jële ci suñu gafaka demu jëlewu jéb gaadewuñu ko ci état wala kenn ku ñu jàppale ci dëkku tugal yeeg yu mel ngeen defar leen éclairage. ñun ñoo ñoo jël suñu aleelu bopp li nga xam ne suñu suñu su ci suñu ci suñu ñax la jógee. Euh, la ñu jël def ko ci pour mun a jàppale askan bi ñu mun a dem di faju dem di liggéey ci seen i tool kon foog naa lu mel noonu euh, foog naa ne benn exemple la nii rek euh, misaal la waaye munoon naa jox yeneen yi misaal ndax Touba yàgg naa di fa dem tindoo déeg taw feex ñu bari xam nañ ma foofu mhm. ci def loo xam ne ci askan bi la jëm te ci sama poos laa ko jëlee ndax ba léegi musuma falu fenn kon li may def sama poste rek lay jóge te loolu li muy wane mooy dañu am yéene dama am yéene ci sama askan te dama am gis-gis gis-gis boobu nag bëgg naa ci tënk tuuti bu boo ma ci may gis-gis ci programme ndax loolu jàppandal la rek waaye li am importance mooy programme bi mooy fi ñu bugg a jëmale Sénégal ndax Sénégal ndax booy def politique li la tax a jóg ci politique bi ci sama xalaat mooy da nga am yéene da nga am gis-gis boo xam ne euh, pour sa réew la pour sa askan la. ñun génne senegal ci jafe-jafe yi. pour génne jafe-jafe yi ci jafe-jafe yi waaye weesu loolu pour jox Sénégalais yi euh, maanaam kattan pour dund dund. bi nga xam ne moom nga yéene sénégale yi maanaam dund bu baax dund boo xam ne dinañ mun a méngoog yenn yenn yenn nekkin bu baax boo xam ne di voilà dinañ li ñuy gis ci àdduna si ñoom ñu mun cee jot wala boog am am lu luñ ci jot waaw ah, suñu programme nag ñu ngi ko tuddee 3R bu ngeen demee ci internet di ngeen gis programme boobu 3R 3R euh, ku ko bind di nga gis sama tur maa nga gis turu parti bi PAC 3R boobu ñetti ñetti ñetti ponk la ñetti ponk yu mag yoo xam ne euh, boo ci laal nag dafay laal beneen looloo ci gën a am importance mooy suñu programme dafa nekk loo loo loo xam ne un programme cohérent wute nag li nga xam ne mooy euh, euh, euh, programme bii ñuy bi bi président doxal depuis parti depuis bi mu ñëwee en 2012 muy plan Sénégal émergent nga xam ne tuddatuñ ko sax ndax fi mu ne nii dafa dafa dafa nërmeelu dafa nërmeelu programme am dafa nërmeelu ñun suñu programme ñetti ponk yooyu benn bi refondation la refondation mooy balaa ñuy xalaat développement nañu xalaat ñun ñooy kan delloo si suñu bopp ci seetaat suñuy valeurs yi suñu valeurs yi nag nekkul loo xam ne euh, valeur wu euh, euh, lu ñuy jéggaane ci biti la te damay fàttali souvent ne nañu def def def la différence entre les le la religion ak suñuy valeur li nga xam ne mooy suñu valeur intrinsèque ndax religion boo xoolee ci Sénégal ñii chrétien la ñu ñii musulman lañ ñii ñii animiste la ñu mais tereewuñu ay sénégalais lañu lan moo tax ñu nekk sénégalais valeur yooyu nañu ko jéegaat nañu ko xoolaat bu baax ba pare génne ci li nga xam ne mooy quintessence bi mooy li nga xam ne dëgg-dëgg mooy tax ñu ne yow sénégalais nga bu ko defee nag loolu ñu mun cee sukkandiku pour doxal suñu jëflante ak Euh, ñi nekk bitim réew nga xam ne ñu ñooy suñuy partenaires yooyu euh, itam euh, ñu mun cee doxal li nga xam ne mooy suñuy institutions yi par exemple le conseil des sages man dama jàpp ne conseil de sages kooku mu ngi ci suñu programme dañ ko war a indi ci suñu institution. waaw non non mais Bruno D'erneville ñu ñëw ndànk-ndànk erreur bi nga njëkk a wax. refondation refondation nga wax. léegi yow da nga jàpp ne réew mënul développer. sans bu ñu sukkandikuwul si sunu cëslaay sunuy sunuy aada. aada sunuy sa cosaan voilà xam sa bopp xam sa cosaan am am am. gëm sa bopp gëm sa bopp. waaw man nag del li ma dellu sax fu njuñ dëkk si dëkk foofu dafa bokk sax ci li nga xam ne dama bëgg wane. sama sama mbëggeel sama cosaan xam fi nga jógee te bañ a ragal ñu lay wax yow waa kaw gi la wala wala euh, te xam ne dina complexe euh, voilà nekk complexe man séeréer yi ci sama cosaan la ñu bokk waaye du séeréer yi rek waaye nag côté séeréer bi euh, nekk na loo xam ne euh, bëgg naa ko gën a fësal bugg naa ko gën a jëmal bugg naa leen jàppale ci seen i ci seen activité culturelle yi man ngi ko doon wax la le maire bu yàggul ma ne leen activité culturelle yi il faut ñu def ci ay festival yoo xam ne festival yu mag yoo xam ne day wane suñu cosaan mais cosaan bi du fecc rek du def ay ay puukareeg yu demee est-ce que xale yi léegi jeunesse bi ak euh, technologie internet bi est-ce que xale yi seen cosaan ñoo ngi koy gëstu ak ndax tamit intéressé na leen. mais justement loolooy problème bi c'est que ñoom li ñuy gis ci doxalin ni suñuy homme politique yeeg c'est yenn suñuy yenn mag ñi itam tax na ba fi mu ne nii ñoom ñu ngi fàtte ñoom ñooy kan euh, bu ñu commencé bu ñuy sol ay ay ay check down ak yi bon xam naa ne loolu dépassé nañ ko sax léegi mais bu ñuy def yenn daanaka tey au niveau musical au niveau culturel tey adduna yëpp dafa jaxasoo dama xam ne lépp lu am euh, fenn dañuy ñeneen ñi dañ koy jéegaane indi ko mais dañuy fàtte ne mun nañu sukkandiku ñun itam ci suñuy valeur te bañ a xeeb suñu valeur boo xeebul sa sa valeur rek doo xeeb sa bopp te boo xeebul sa bopp lépp li ngay jëflanteeg nit Eh, maanaam euh, gagnant gagnant lay doon maanaam yow da nga ciy gis sa bopp da nga ci war a gis sa bopp balaa ngay dem fekki keneen ki voilà donc loolu mooy vision wu refondation bi deuxième point bi eh, loolu nag am bari na ci lu ci lu lu ci ne ah. par exemple euh, euh, service national ñun dañu bëgg ñu indi ñu créer un service national wax nga fi le problème des jeunes moo tax ma tudd service national bi uh-huh. service national bi ñaar fukki junniy jeunes bugg nañu at bu jot ñu dugal leen ci armée bi ñu nekk waxuma ñuy def rek service militaire mais service national maanaam ñu leen di dugal aussi ci service euh, civi euh, citoyen civil yi ñu mun di liggéey ak population yi mais aussi ñu am formation militaire boole seen xol ñëpp. muy ñuy nekk Fuuta ñu nekk Gambie ñu pardon ñu nekk Casamance ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu boole leen muy séeréer joola euh, malenke ak ñoom ñëpp ñu xam ne ñoom ay sénégalais lañu bokk lël bi kon loolu day bokk ci li nga xam ne day dëgëral suñu ànd dëgëral suñu unité donc gis ngeen ne refondation dama leen di junj rek pour wax leen lan mooy densité wu refondation bi même euh, am na ñuy wax ne Léopold Sédar Senghor doon na wax ne réew mënul développer sans culture euh, te li nga wax lépp enracinement et ouverture moom la moom la doon wax waaw Euh, effectivement refondation boobu mun nañ ci sori lool ci waxtaan bi constitution bi foog ñu xoolaat ko itam pour gën a dooleel suñu refondation yooyu yëpp mu ngi ci biir euh, programme bi. mais na bu ñu da bëgg daal yow réew mi ni ko si ñu tëggaat ko. tëggaat ko bu baax ma ne la hymne national bi sax wax naa ko dafa laaj ñu xoolaat ko. système éducatif bi. si évidemment système éducatif bi ci la bokk parce que système éducatif bi ci la lépp nekk fa la ñuy jàngalee xale yi li ñu war a doon ëllëg. kon ñoom ci ci en ci ci ci enracinement boobu ci ci ci jàngale boobu dès le départ nag ni mu gën a ni ñu gën a ndawee lañ leen wax a commencé jàngal ñoom ñooy kan ak naka la ñuy war a gëmee seen bopp. mais valoriser sunu mbay mi. alors mbay mi nag loolu mu ngi ci deuxième point bi. deuxième point bi mooy euh, restructuration mooy deuxième R bi. deuxième R bi euh, boo xoolee liñ ci wax. mooy benn bi mooy administration bi foog ñu xoolaat ko foog ñu tëggaat ko foog ñu tëggaat ko ci anam yoo xam ne dinañu mun a contrôler bu baax ni administration bi liggéey ndax fi mu ne nii guerre bi dafa bari te guerre fu mu law rek yàq lu bari. Mhm. léegi nag ci deuxième ci ci ci euh, beneen ponk ci biir restructuration bi mooy Euh, euh, réorganisation bu agriculture bi ndax mbéy mi boo xoolee benn tey ni ñu doon béyee ci temps Senghor benn tey moom lañu moom la ñu nekkee di xaar di xaar nawet ak yu demee noonu dë naam am na ay points yoo xam ne ñu ngi koy développé ay produits ak yu demee noonu mais loolu ay pàcc la rek ay ay koñ la yu ndaw la rek mais mënul doon béykat yëpp ñun li ñuy xalaat mooy loo xam ne day laal béykat yëpp lan mooy tax ñu laal béykat yëpp rawatina ci période yi ñu toll ni nga xam ne gis nga ne euh, changement climatique dafa am ba nga xam ne kenn xamatul nawet bi tey ren gis nga ne nawet bi juróom we juróom benn weer la def mhm. mu doon loo xam ne yéemi na lool alors que euh, gar gerte gi ñoom gertewu ñetti weer la ñuy def mooy yi nga xam ne ci ñetti weer lay meññ mhm. kon gis ngeen ne loolu day indi ay jiixi jaaxa kon il faut ñu réorganiser agriculture boole ko gis ngeen ne béykat yi amuñu doole pour mun a làq seen seen meññeef seen maanaam ut ay angaar ni ñu ko doon defee ay seko yu mel noonu amatul ana fu ñuy defaree c'est ko bareetul amatul kon yooyu yëpp nekk na loo xam ne. waruñu ko bàyyi état mais faut que Bruno D'erneville il faut que tamit euh, kii ñëw maanaam espoir dundaat espoir amat ci wàllu mbay mi ndax boo xoolee jeunes yu bari dañu dem ba découragé amatuñu espoir ci mbay. espoir boobu nag la ñu indi buñ ñu dégloo rek dinañu xam ne espoir boobu mu ngi ci ñun nekkul ci keneen. d'accord wala espoir boobu mooy lan mbay mi naka lañ koy defaraate benn bi mooy dañuy war a def li ñuy woowe les regroupements stratégiques des villages dëkk dëkkaani il faut ñu organiser waat territorialement réew mi maanaam mënatuñu bàyyi pàcc-pàcc ay dëkk dëkk dëkk dëkkaan ku ci ne bëgg am li mu war a am loolu mooy day wàññi suñu doole parce que mënuñu jox ku ci ne li mu war a am donc il faut ñooñu di regrouper wu ci yenn place yi nga xam ne xas na ba am un minimum d'équipement pour ñu mun a concentrer wu nag léegi nag ci territoire boobu nga xam ne dañ ko libere te nag may wax ne ñii nga xam ne dañ leen di déplacé bu ñu leen di déplacé dañuy moom seen suuf benn tey dama koy dama dama bëgg moom loolu mu leer déjà mais biñ fi defee territorialisation yàggul non mais ute na ute na na territorialisation boobu ñuy wax noonu c'est du côté administratif la loolu administratif la. Ah, maanaam sànq ne nga yow administration bi il faut ñu changer ko. waaw non mais ute na man dama ne administration bi foog ñu réorganiser ko réorganiser mooy dañuy xool ni ni ñuy doxalee procédures yi maanaam ni ñuy tabbee nit ñi ak nit ki bu liggéeyee naka la ñuy xam ndax na liggéey na wala liggéeyul naka lañ koy contrôler ndax contrôle boobu ñu ngi koy dinañ ko mën a def ci anam yu normal ndax ci nga xam ne dafa ñëw pour a euh, jëflanteeg administration te amul li mu am ndax mun na am fenn fu mu ko jooyee ba ñooñu mun euh, lijjanti loolu defaraat ko. yooyu yëpp mooy or li ñuy woowee organisation. d'accord yaa ngi ñëw ci. Euh, donc ma ñëw ci ma ñëw ci ci organisation territoriale boobu maanaam dañuy déplacer ay dëkk attention loolu wute nag territorialisation territorialisation dama ne. président dafa ne rek boo nañuy fii zone bi dañ koy dañuy dañuy dañuy dañ koy def commune dëkk dëkkaan yi yëpp ñu boole leen ci commune bi mais ñun dañu ne dëkk dëkkaan yi dañ ciy am ñu ñuy déplacé maanaam dañ leen di jële fi ñu ne yóbbu leen feneen xam ngeen ne loolu ute na mais li tax ñu wax loolu mais distance bi du sori wala distance bi ñun ci suñu xalaat bu gàtt mais loolu war nañ ko gën a étudier mais que si xalaat bu gàtt war na doon loo xam ne mun na dem ba cinquante kilomètres te dinaa leen wax li tax dafay fekk aussi ki ngay déplacé nga nga waxtaan ak moom non bien sûr loolu loolu loolu loolu évident que il faut loolu ci waxtaan lay demee mais loolu ñun depuis 2012 benn tey suñu programme bi nga xam ne ñu ngi koy togg di ko toggaat fépp fu ñu dem lii ma lay wax nii wax nañ ko fa te dëkk te waa dëkk yi dañu ne ñun de lii xanaa nga xamul wala xanaa nga nga far fenn ba pare waaye bu dee xam xam nga te faroo fenn lii foog ñu mun cee ànd ndax lii baax na ci ñun kon li tax ma ne baax na ci ñun. mais mais da gis ne ci ñoom yow da nga gis ne. Euh, te li ngay wax ni presque monde rural bi lay concerne da gis ne dëkk yi dëkk yu bari dañoo tasaaroo. Euh, da dem benn dëkk boo xam ne ay quelques kër nga fay fekk nga jàpp ne yooyu yëpp boo leen dajale woon fenn si lay ëppee solo du du fenn rek waaye dañ leen di dajale par groupe par group lay doon mais dañ leen di indi ci ay dëkk yoo xam ne ñoom xas nañu ba am ay hôpital wala centre de santé wala lu demee noonu maanaam dañu leen di dajale ci place yoo xam ne am na lu as tuut loo xam ne def nañ ko fa loo xam ne seen école yi exemple gis nga ñii nga xam ne tey bari na xam ne ci dëkk yi bu ñuy jàngi seen xale yi bu ñu eggee euh, ci CM yi dañuy obligé def vingt kilomètres wala dix kilomètres pour dem jàngi yooyu rek ay jafe-jafe la kon ñooñu il faut ñu jege ci place yi nga xam ne xas na ba am ay école yoo xam ne du ñu soreeti yenn sore yi donc loolu mooy premier objectif deuxième objectif mooy ñi libérer ñu libéré suuf si ba pare nag dajale ñi nga xam ne euh, ñooy béykat yi ci ay place yoo xam ne bu ñu fa bu ñu bu ñu bu ñu leen organiser léegi nag en coopérative ma ñëw ci deuxième point bi coopérative rurale la ñuy def nag bu boobaa béykat yi ñu groupé leen par cinquante wala par cent utal leen su suuf boo xam ne dañ leen di may ba cent hectares cinq cent hectares mille hectares état bi bën na leen ay forage attention nag du leen ko may daf leen koy daf leen koy lebal du doon sax subvention daf leen koy lebal pour wax leen ne dinañu am xaalis pour fay loolu donc euh, euh, bënn forage yi indi ay machine ay machine lourde parce que ñu ngi liggéey si cinq 500 hectares sur 1000 hectares ak lu jëm jëm kaw au lieu ñuy jël ay mille hectares di ko jox indiens yi wala di ko jox marocains yi wala ñeneen ak ñeneen suñu baykat yi la ñuy organiser en entrepreneurs ruraux entrepreneurs agricoles entrepreneur agricole nag da nga koy former da koy tete ni ki président Senghor defoon bi muy def les les terres neuves da nga leen di encadrer da nga leen di jo jox formation boo xam ne dinañ mun a xam lan mooy coopérative man bu ma indee deux hectares yow nga indi cinq hectares kii indi dix hectares naka bu ñuy bés bu ñuy pàccoo bés bu ñuy séddoo naka lañ koy séddale ku ci ne méngoog li nga indi waaye nag état daf leen di dollil pour mu def cinq cent wala mille hectares donc bu boobaa di ngeen gis béykat yi di béy waxuma ñetti weer waaye fukki weer ak ñaar muy at bi lëmm te nag lii gën a neex mooy dinañu am les technologies pour bi ngay tàmbali ji ci ngay xam ñaata ngay am ndax di nga maîtriser intrants yëpp muy ndox mi muy lépp te bu boobaa xale yi ngeen di wax noonu nga xam ne seeni doom nga xam ne ñu ngi ci dëkku taax yi te amuñu liggéey ñu ngi foofu di taxawalu mais dañuy dellu si ak seeni diplôme jàppale leen ci wàllu comptabilité ci wàllu marketing ci wàllu yeneen ak yeneen pour mun a gën a ñoñal liggéey bi ñuy def mun koo exporter li nga wax ni euh, am na solo mais faisabilité bi euh, ban est-ce que du nekk long terme ku yow tey par exemple tey boo nekkoon mais looloy euh, politique boo nekkoon boo nekkoon njiit réew mi li nga wax ni si ñaata at nga ko mën a réaliser alors loolu en moins de dix ans mun nga def ay zone yu bari yoo xam ne traité nañ ko noonu en dix ans nag doo doo mun a peut-être couvrir lépp donte sax fi mu ne nii pétrole bi ñëw na donc pétrole bi ay moyens additionnels la yoo xam ne mun na accélérer processus boobu mais li wóor ba wóor mooy processus yu mel noonu par zone pilote nga koy def. li ñuy woy les zones pilotes les zones pilotes mooy da ngay jàpp ay ay zone nga nga déggoog population yi nga ne leen est-ce que nangu ngeen ñu def loolu bu ñu nee nangu nañ ko par exemple tey Caritas boo demee Kaolack am na ay zones yoo xam ne sax Caritas def na ko fa jël ay dëkk dëkkaan jegele la leen pour mun leen pour seen liggéey gën a ñooñ ñooñu tey ñu ngi ñu ngi réussir donc boo defee lu meen noonu ci yenn zone nga décider ne zone bii yëpp nga waxtaan ak ñoom ne leen dañ leen di jàppale ci at yi ñaar ñetti at yi yéen ñëpp ngeen mun a déplacer ñu mun a def li ñuy wax noonu mais bu dee élevage aussi ndax agriculture boo nee agriculture ne élevage. bien sûr ndax ñiy def agriculture ñooy def élevage. mais bien sûr alors avantage bi am. justement mooy xeexoo yi ñu gis ci sàmm yeeg béykat yi nga xam ne seen jur yi dañuy dugg ci ci yenn place yi béy mais loolu du amati pour lan du amati parce que day bu boobaa territoire territoire territoire bi dañu koy découper ci anam yoo xam ne day am ay zone de pâturage te coopérative yooyu ma lay wax noonu. zone yoo xam ne pour sàmm la. zone voilà zone yu sàmm te gis ngeen coopérative yi li tax ba waxuma coopérative agricole dama ne coopérative rural boo dégloo bu baax. coopérative rural mooy coopérative yoo xam ne dafa ciy am sàmm daf ciy am bay daf mbéy daf ciy am y compris sax napp donc dañu leen di organiser comme ay entreprise parce que ren parce que fii mu fi ñu toll nii à partir de maintenant depuis quelques années sax lépp looy def ci euh, secteur primaire bi dafa ànd ak technologie. mënatoo def dara te àndul ak technologie te boo buggee mu ñoñ boo buggee mu développer il faut nga dugg ci technologie bi il faut nga def loo xam ne. dafa am xam-xama ci bopp. waaw mais euh, Bruno. loolu ay moyen la laaj. ay moyens la laaj mais Bruno tey dafay am benn euh, euh, loo xam ne bu laajee nouvelle technologie comme ni nga ko waxee secteur primaire bi mais ñi nekk ci kaw gi dafay laaj non seulement ci côté mantal nga leen di xelal. beneen bi euh, éducation mënut a ñàkk foofu. mais loolu loolu mooy politique euh, Abdou Abdou Khadre loolooy politique politique. boo koy def da nga bëgg a transformer mentalu population yi da nga bëgg a changer ni dundee nit ñi. nit ñi mënuñu ak waaw mënuñu nit ñi mënuñu seen dund mënul changer fekk seen xalaat a ngi euh, do nekk ni ni ñu nekk benn tey. kon loolu dafa laaj formation dafa laaj encadrement maa la doon wax sànq li président Senghor def loolu déjà révolution la woon bi muy jëlee nit ñi ñaaxaar di leen yóbbu Méréto. loolu nit ñi xa dañu dañu ne woon mais lii est-ce que est-ce que est-ce que dina mun a mun a réussir pourtant réussir na bi ñuy bi mu leen di jàngal ñu jël ay machine di leen takk ci ay fas pour fas yi di xëcc ci machines yi pour pour béy ñu bëri dañu gëmoon ne lii munul am parce que ñoom mbéyu loxo lañ doon def te pourtant def nañ ko. mais xam nga tamit euh, li nga wax ni boo xooloon tey par exemple tey dëkk bu ci mel ni euh, Touba Touba soo xoolee ñu baree baree bari fañ nekk dafa amul dara ñu ñëw tuxu si Touba. Mhm. mais comme li ngay explique nii xam nga ñoom ñoo ñëw euh, de leur gré ñëwal seen bopp. Mm-hmm. du loo xamante ne état moo ko organisé. Mm-hmm. mais tey par exemple tey état bu gisee dëkk bu mel ne Touba ne ñu bari ñoo ngi fay ñëw dëkk baa nga yokk. Mm-hmm. war na am taxawaay boo aussi euh, war na ko mën a am foofu. exactement. Euh, zone yu mel ni Touba xam nga yenn saa yi da ngay gis euh, d'une manière général sax ci ci Bawol beeg yooyu da ngay gis suuf ay ay place yu bëri yoo xam ne suuf rek la pratiquement da ngay gis da ngay am impression sax ne peut-être zone bi euh, xëñ na neexul ci mbéy et pourtant ndox a ngi ci suuf ndox a ngi ci suuf. boo ko jëlee te te suuf si ni nga ko waxee dañ koy traité moom moo tax ma la doon wax sànq ne léegi muy mbéy muy lépp loo gis. technologie def ci àndal xam-xam daf ci ànd kon loolu boo ci defee technologie def ci xam-xam daf ci alal former nit ñi mais ala kulli ali day développé. te bu boobaa di nga gis ne ñi doon ñëw ci dëkk taw kaw yi. Hmm. dëkk taax yi. ñoom ci seen bopp dañu xaar ñoom ñooy dellul seen bopp ndax xam nañu ne fale intérêt am na fa voilà kon mu ngoog kon gis nga ne loolu dina wàññi bu bëri pression bi am Dakar gis ngeen Dakar tey dundatuñu Dakar non li nga wax ni dama koy confirmer dafa am ci monde rural bi ñoo xam ne dañoo dawoon dem ci yenn dëkk yi waaye gis nañ ne ñu bari ñoo ngi dellu ci seen dëkk maam yi waaye état bi dafa encouragé wul baykat yi. problème mu vision la. waaw wu leen. mu du encouragé wu leen parce que dañu amul vision boobu. Mhm. amuñu vision bi loolu mooy loolu mooy loolu moo ñu ma gën a métti parce que ma ci wàllu euh, xaj na dinañ ci ñëw après ci problème mu euh, euh, vote du budget bi et tout sax lii yëpp li muy wane mooy. vision vision budgétaire la ñu am vision boo xam ne koppar rek la ñu xool jël nañu lii def nañ ko te ñoom boo xoolee sax du ñu def sax évaluation maanaam ñoom dañuy jël def nañu temps fii def nañu fi temps mais dafa mel ni ki xaalis bu ñuy sànni la. waaw mais Bruno euh, Derneville xam nga tey réew bu mel ni Sénégal comme ni nga ko waxee sànq il faut que nga développer réew mi solo xalaatu réew mi ak réalité réew mi mais bu dee nga bëgg a Sénégal ki nekk France xam ne du def une semaine ci armée Touba euh, Dakar gi bëgg la xelal Sénégal aussi euh, y problème. du sotti euh, du sotti loolu loolu mooy avoir une politique un peu extravertie ngeen baal ma ci ni ma ko waxee ci tubaab loolu li muy wane rek. mooy suñu refondation boobu ma doon wax noonu nga fàtte sa bopp fàtte ki nga doon yow yaa ngi jéem a neex eh, ki nga xam ne mu ngi ci bitim réew xëj na li mu lay jox koppar ak tout ça loolu tam bokk na sax ci euh, ñàkk am confiance ci sa bopp. Mm-hmm. ndax euh, yow bu dee yow yaa ngi doxal politique boo xam ne keneen la neex koo xam ne du du sa waa dëkk parce que mu ngi lay jox. alal mu ngi lay jox subvention mu ngi lay jox ay ay budget mhm. mais kooku fekk yaa ngi doxal noonu doo développé li tax ba ay Corée Japon ak yooyu yëpp développé ñoom à donné dañu xool seen bopp xam ne nañu sukkandiku ci li nga xam ne mooy suñuy seeni valeur bopp pour mën a développé mhm. euh, terewul nag nga jéegaane li nga xam ne mooy xam-xam bi nga xam ne feneen la jóge nga indi ko adapté ko loolu ci suñu métier par exemple man bi may ñëw ñibbisi en 2000 en 2000 jógee tugal parce que bi ma defee sama jàng yi kawe yi ba pare liggéey euh, tugal euh, fukki at dama dellu si sama soxna dañu préparer wu mais bi ñu dellu see dañu créé benn société de contrôle technique ci jamono yooyu tubaab yi rek ñoo ko fa doon def ñoo ko ñoo fi doon def. Mhm. te am na fi ay kilifa yu mag yu ma ne woon si lii ngay doxal nii du mun a dem ndax tubaab yi rek ko fi mun a doxal. sant yàlla tey bi nga xam ne non seulement ñun suñu société bi génn na ci waaye fukki société sénégalaise dugg nañ ci ba ñu ngi liggéeyal seen bopp waaye ñu ngi liggéeyal Sénégal ndax dañuy liggéeyal ci wàllu normes yi ak ci wàllu réglementation nga xam ne loolu Sénégal bokk na ci pays pointe yi en Afrique de l'Ouest ñu nekk ci wàllu. donc c'est important. ñu xam suñu bopp ñu gëm suñu bopp ci lépp lu ñuy jëflanteeg nit ñi. d'accord jërëjëf euh, Bruno D'erneville yow yaay leaderu euh, parti pour l'action citoyenne sànq sa biir wax il faut ñu euh, arrière tuuti bala ñu si actualité bi ndax yaa ngi doon wax ci administration bi ndax man dama jàpp ne bëri na noo xam ne nu réew mi di doxee république bi maanaam loo xam ne lu fi colon yi bàyyi woon la te adduna tamit day dox il faut que ay réformes mu am. ci lu jëm ci wàllum euh, justice su Sénégal euh, ndax yow tey sa programme am nga ci xalaat. waaw justice su Sénégal euh, foog naa ne tey ñëpp gis nañu ne mun nañu wax ne nërmeelu na li tax ba nërmeelu na mooy justice bu demee ba nga xam ne sa askan munatul gëm li ngay décider munatul gëm li ngay wax kooku yow sa sa mission bi fayir na. ndax muy justice muy lépp luy administration muy état en général lan moo tax état am lan moo tax justice am ak yooyu yëpp c'est parce que ci suñu organisation sociétale bi maanaam ni société bi taxawee en tant que société démocratique askan bi moo jël kàddoom moo jël dooleem moo jël mën-mënam teg ko ci loxo ay nit ci wàllu politique ne leen yéen yéen a ñuy jiite ah. yaaye da ngeen bu ñuy bi ngeen ñuy jiite nag da ngeen di taxawal ay institution ak ay organisation yoo xam ne ñoo ñu ñooy seeni i maanaam ay technicien la ñu ñoo xam ne dañ leen fi nekkal pour doxal li nga xam ne moom ngeen indi comme mbébét comme xalaat pour suñu réew ah. donc noonu la demee mooy politiciens yi nekk ci kaw administration bi ak institution yi ak ci suuf population yi donc problème bi mooy politiciens yi ñu fal dañuy loo xam ne méngootul sax ak li population yi bëgg maanaam ñoom seen bopp la ñuy doxal. dégluwuñ population bi déglootuñ seen population yi. ba tax mais manque de confiance bi ngay wax sànq ci justice bi nu ñuy defee ba est nu ñuy fexe ba espoir am. alors ci laa doon ñëw. donc léegi organisation bi nekk ci diggante bi. Euh, politiciens yi ak ak ak euh, population yi mooy administration boobu mooy euh, institution yi mun nañu wax ne justice administration la institution la naka lañ ko mun a defaraatee sànq maa ko doon wax il faut ñu defaraat administration bi yépp te boo nee administration justice a ngi ci biir ñu koy defaraate mais dañuy def audit général te audit bu may wax audit du audit pour pour pour ut ku ñu ñu faagaagal de takk tëj leen kaso déedéet pour xool ni yëf di doxee ak fan la lënt lënt am parce que tey ci àdduna si lépp luy organisation dañu ko xalaat dañu ko xam dañ ko maîtriser ci wàllu ay kayit maîtriser nañ ko fu nekk. waaw mais xam nga kon loolu euh, borom xam-xam yi ci côté boobu ñu ngi fi. mais xam nga Bruno D'erneville tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk ci magistrature bu Sénégal ñoom li ñuy jooy dañuy bëgg président bi génn loxoom ci magistrature bi. Ah. ndax tey exécutif bi pouvoir exécutif bi xam nga bu dee tey ministre de la justice. moom mooy jël am magistrat man koo jëlee Tamba man koo yóbbu Kolda man koo yóbbu Thiès. kooku dafay am influence ci moom dafay am pouvoir ci moom. tey boo demee fu mel ni Amérique tey euh, président bi mënulul dara magistrat bi. mënu koo dàq ndax ñooñu dañu am seen euh, seen indépendance est-ce que séparation même séparation des pouvoirs def même bu ñu ko defee suñu constitution bi euh, ci bind la yem est-ce que jàpp ne bu ñu demoon tey ba magistrature bi xam ne président bi du leen manal dara est-ce que loolu bokkul ci luy indiwaat confiance ci askan bi si bokk na ci bu baax d'ailleurs même euh, boo xoolee rapport bi euh, syndicat des magistrats bi de bi mu defoon EMS euh, waaw defoon na fi rapport ci jamono yu Wàdd sax mm-hmm. boo xam naka la ñu war a tëralee mbir yi pour que justice gën a mun a dox pour que indépendance de la justice mun a am mais loolu il faut mu am volonté politique pour ñu def loolu mais gis nga ñun Sénégal euh, boo xoolee souvent sax euh, boo xoolee li xew France dafa mel ni kii ay duplicata la ñuy def fii parce que France même problème bi ñu la ñu am aussi ak seen justice problème indépendance de la justice bon ñoom sax xaw na tane léegi mais ñun dañu nekk ci situation boo xam ne dañuy toppee rek mais wax nga fi jox exemple américain yi yi seen justice elle est beaucoup plus indépendante xam nañ ko même politique bi sax ci biir boo xoolee euh, euh, contre pouvoir yi dañu taxaw Sénat yu mel noonu le fait muy am le fait muy am euh, mid-terme bi mu maanaam à mi-mandat ñu évaluer président bi xool ndax dañ koy amaat confiance ci moom am déet yooyu yëpp nekk na loo xam ne day tax président bi liggéey kon ñun war nañu jéegaane yépp orga bépp organisation ci àdduna si li ci am solo ñu jële ko mais loolu li muy laaj mooy am ay homme politique yoo xam ne am nañ ñu cofeel ci seen askan am nañu yéene ci seen askan fekk loolu amul fekk ay groupe ñooy am ni ñu ko gisee nii te man da ragal naa ne groupe yi du rek ci op ci pouvoir opposition c'est yi ndax dégg gis nañ fi euh, bu yàggul encore yenn wax yoo xam ne euh, mun na loo xel ci wàllu opposition non mais ñi doon wax ay euh, cumul pas de cumul de mandat ak yu mel ne fi fi ne nii ñoom kaw Birame Souleye Diop <laughs> man de du ma tur waaye yéen xam ngeen ko kon loolu bu commencé am dama ragal ne loolu day wàññi force opposition bi parce que day wan population yi ne yéen ni ngeen nekkee li ngeen nekkee wute nag li ngeen di wax kon je pense que loolu li muy wane itam mooy peut-être que tollooguñu foo xam ne euh, suñu intérêt askan dëgg-dëgg moo ñu ñor. d'accord léegi d'accord léegi Bruno Derneville euh, ñu ñëw si tuuti ndax aussi euh, auditeurs yi bu ñu déggee cumul mandat rek duñ comprendre te il faut que am na loo xam ne information léegi xam nga pour revenir si pour nga mën si joxe sa xalaat 2019. Ousmane Sonko ak coalition bi mu àndaloon ñoom dañu tegoon seen programme Ousmane Sonko ne bu nekkee président de la République dina def ab proposition de loi boo xam ne dañuy tere cumul mandat 2019 élection yi jàll na gañewul euh, ñu dem ci élection législative yi ñu gis ne euh, biram Souleye Diop nekk na maire sa Thiès nekk na député euh, ñenn ñi jàpp ne comme loolu benn esprit bu Ousmane Sonko amoon la li doon logique xel na nga ko mooy Biram Souley euh, bàyyi benn benn benn poste Biram ab des na keneen aussi mais ñi def cumul mandat nag bëri na Barthélémy Dias ak Ahmed dara mais li tax ñu wax Pastef mooy seen leader dafa am lu mu ci waxoon. xalifa Sall waxu ko woon bañ man see tudd Barthélémy Dias waaye euh, Karim Wade waxu ko woon bañ mën a tudd ku bokk PDS mais Sonko moo ko waxoon moo tax ñuy tudd kaawu ku bokk Pastef. Euh, bëri na tamit ñu nekk Pastef ñoo xam ne ànduñu ci yow lan moo ci sa position. waaw loolu de man leen rek la may fàttali mooy bi Macky sal doon wax ne euh, bu faloo bu faloo moom mandat yi déjà daf koy delloo si cinq te daf koy appliquer boppam te ñaari mandat lay am. gis ngeen ne bi mu ñëwee euh, dafa dem ba ci biir commencé indi yeneen ay tànk bukki ne il faut mu laaj constitution il faut que mu laaj euh, euh, euh, conseil constitutionnel et cetera et cetera conseil bi ne ko non il faut nga bàyyi sept ans yi mu ne kon gis ngeen ne ñoom ñoo wax ne il faut ma bàyyi sept ans yi kon ma dama koy bàyyi kon li ma Sall la doon wax ci jamono yooyu soit daf ko doon wax pour naxaate soit xamuloon li muy wax waaye ñaar yëpp muy muy xamul lu muy wax ak muy naxaate ñaari yooyu yëpp nekkul loo xam ne Euh, mun nañu wax ne lu baax la ci homme politique maanaam safaan la. Hmm? est-ce yi bokk nañ bu Macky Sall beeg bu Pastef kaa yi bokk na parce que gis nga moom bi mu faloo rek changé changé position. ñii tamit ñu ngi wax boobu kenn falaguñ leen ñu ngi naan euh, cumul de mandat du am cumul de mandat ñun euh, ànduñu ci et cetera tey ñu ngi nii. nekk ci situation bi ñu ne non loolu dañ koy bàyyi ba ci kanam parce que donc. mais est-ce wax ji wax ji kañ méngoo na. mais tey bu doon tey Ousmane Sonko mi nga xamante ni tey moom mooy moom mooy seen candidat. ndax biram du candidat bu doon tey Ousmane Sonko nekk na président de la république jëfewu ko wala mu nekkoon député nekk maire au moins. waaw dama jàpp ne euh, dëgg la. Euh, parti politique parti politique yi wala nga jàpp ne biram photocopie Ousmane Sonko la. <laughs> alors loolu moom. du ma ci xuus du ma ci xuus nee nañu nee nañu nee nañu li kii wax ak li li li en fait position wu Ousmane Sonko euh, c'est clairement différent de bu Birame Souleye donc dafa mel ni ki dafa am problème ci seen biir man xalaat naa ne amul problème ci seen biir waaw loolu foofu laa yem. du ma ci sori mais amul problème ci seen biir. te euh, euh, yenn yenn yenn yi ay stratégie la mais li ma bëgg wax rek mooy na nañu def attention. Mm-hmm. nañu def attention bañ a décourager yi. parce que euh, nguur warul tax yenn euh, yenn yenn yenn yenn comportement yi nga xam ne euh, c'est des comportement malheureusement yoo xam ne li muy wone rek mooy yow stable lo boo nekkee njiit te bugg a yóbbu réew mi ci anam yu sell anam yoo xam ne anam yu sérieux anam yu yu solide il faut yow ci sa bopp nga doon ku solide maanaam li nga wax du dañ balaa nga koy wax nag danga koy segg da nga koy xool bu baax ba xam ndax lii nekk na loo xam ne jar naa wax jar naa def ndax nag euh, certains ñenn ñi mun nañu wax ne nekk député ak nekk maire nekkul loo xam ne c'est c'est c'est c'est incompatible man ci sama voilà man ci sama wàllu bopp bu ñu ma laajoon dëgg-dëgg dinaa leen ne de man de ci sama xalaat député ak maire war na mun a ànd boo amee organisation bu baax mm-hmm. lii àndul kañ mooy nekk ministre ak nekk maire mm-hmm. ministre ak maire moom munul ànd mm-hmm. parce que mënoo ay mission la yoo xam ne dafa tara tar dafa am intensité tellement que mënuloo euh, euh, euh, mënuloo cumuler ñaar yooyu. ba pare dafay am ay conflit d'intérêt aussi. voilà ay dafay am conflit d'intérêt tandis que député ak maire mun nañu wax ne. ou en fait askan rek askan bi la rek. voilà et puis et député ay session la. Mhm. donc ci biir ci diggante session yooyu mun nga toppatoo sa mairie normalement. waaye nag boo jógee yow ci sa bopp kenn waxul wax waxloowu la kenn joxu suukar nga ne lii de man duma ko def. nga dem ba toog ba pare ne non non finalement. mais c'est parce que yow soit da doon naxaate soit yow xamuloo li nga doon wax. d'accord de euh, jërëjëf euh, Bruno D'erneville léegi dafa am suñu benn naataango Pape Alé ñu jàpp ko ci information yoo xam ne daf ko fësal ndax euh, ñu bari aussi jàpp bi ñu ko jàpp dañu jàpp ne. Euh, nërmeelal démocratie la waaye ak ak yelleefu taskatu xabaar yi la xañ leen seen liberté la ndax dafay am information euh, intérêt général boo xam ne journaliste d'investigation bi euh, parfois mënu seen noppi loolu mooy gisinu ñenn ñi yow jàpp bi ñu ko jàpp noo ko gisee. waaw man d'abord euh, sur le plan euh, déontologique man dama jàpp ne journaliste bépp journaliste dafay tënku ci code d'éthique bi nga xam ne et de bi nekk mooy code journalisme journalistes yi dañu am benn organisation ni ki avocats yi am organisation ni ki médecins yi am magistrats yi am organisation donte sax euh, nekkul ordre je pense que nekkul ordre euh, les journalistes nekkaguñu un ordre mais organisation la boo xam ne normalement bépp journaliste bu respecté wul sa étique ak déontologie foofu lañ la war a kalaame ñu sanctionné la avant état di ci def quoi que ce soit. mooy correct loolu moo war a doon yoon wi niñ ko defee ak yeneen parce que nag attention journalisme. loolu journaliste am nañ ko mooy correct. mooy correct bi. Mhm. donc euh, donc loolu dafa mel ni kon gis nga correct teg nañ ko fi mais amul njëriñ. Mhm. parce que bu amoon njëriñ dëgg-dëgg bu doon dëgg-dëgg wala jox nañ ko gëddam normalement av kenn du sanctionné journaliste da ngay dem ci CORED wax ko ko CORED xool li muy def bu deful doxalul ni mu war a doxalee exactement ni état di di di di agir ci ordre yi muy ordre des avocats ordre des notaires et autres de la même manière dina mun a agir ci correct loolu moo waroon doon la démarche euh, bi nga xam ne mooy démarche bu bu apaisée bu démarche euh, euh, républicain normal loolu nag état doxalu ko ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax parce que nag li muy wone mooy dañu nekk ci état boo xam ne Euh, ñetti tànk lay doxe wala en tout cas daal euh, nekkul état boo xam ne mu ngi dox normalement euh, donte sax teg na ay institution yu donte sax def na organisation boo xam ne war na mun a doxal normalement parce que organisation yooyu li leen tax nekk mooy pour mun a daal am cër bu doy pour def li mu war a def ci anam ni mu ko war a defee te fii ci wàllu journalisme jàpp un journaliste quel qu'il soit demane ne c'est une entorse à la liberté d'expression bi xam ne dañ ko bind ci biir constitution bi rawatina liberté d'expression par des personnes ñoo xam ne elles à assermentées elles son maanaam elles son elles sont reconnues pour pouvoir di wax léegi nag ñu wax ci document confidentiel bi ñu alors dofi document confidentiel nee nañ dafa jël document confidentiel mais gisuñu en tout cas man de gisuma dégguma daal loo xam ne wax na ko fi loo xam ne ça mais en danger le pays. mais mais dañ ne enquête euh, par exemple tey enquête euh, interne bu bu bu gendarmerie bi jëm ci mbiri euh, Ousmane Sonko. waaw mais le fait que document yu mel noonu génn kooku c'est un problème d'organisation interne à l'administration. maa ngi la ma euh, mooy gendarmerie nan la jógee ci loxo militaire dem ci loxo. waaw mais xam nga ñu ngi dellu si waat ci li ma la doon wax mooy réorganiser l'administration procédure yëpp ñu xoolaat ko loolu bu ñu ko defee kon yu mel nii warul mun a am parce que yu mel nii bu boobaa procédure yu sérieuse mooy mun a tax papier yu bu mel noonu génn. léegi nag comme comme organisation yu mel noonu amul euh, euh, suñu euh, suñu rigueur administrative bi dafa dafa dafa dafa sooke mais yu mel noonu foog mu am léegi nag bu amee. bu ñu dem dal ci journaliste bi ndax journaliste bi c'est un journaliste d'investigation moom fépp fu mu am information fu mu mun a am information daf ko fay jëlee léegi nag bu bu bu joxee information yoo xam ne elles sont très sensibles maanaam ça met en danger le le pays de manière très claire bu boobaa état am na droit def li muy def te dama jàpp sax ne bu boobaa sax état ni mu ni ñu ko waxee correct lay njëkk a jaar. mais est-ce que état def communication boppam rek ndax euh, tey par exemple tey boo xoolee information bi jëm ci enquête euh, interne bu gendarmerie. nekkul information boo xam ne dafa am lu jiitu information boobu li ko jiitu mooy événement la boo xam ne quatorze personnes faatu nañ ci tey journaliste d'investigation bi dafay jàpp ne bépp document boo xam ne dafay tax jëm ci mbir moomu jëm ci lu koy leeral ne complot la wala du complot mhm. loolu dafay nekk information intérêt général. général ni ko waxee noonu la effectivement donc euh, journaliste d'investigation la ñu wax <laughs> day dem. outil information yi mu soxla pour gën a leeralal yenn mbir yi bu waxee nag loo xam ne nag euh, waroo nag euh, dëgg bi ah bu boobaa euh, ñu teg ko ci yoon mais en attendant li mu wax daf ko dafa sukkandiku ci ay document nee nañ documents yooyu waru ko woon a am mais loolu du fotom moom li mu li mu def mooy liggéeyu journaliste am te dama jàpp ne sanction bu waree am du ci état directement ak journaliste bi mais correct moo war a intervenir. même état bi même procureur aussi mënoon naa dem au la de l' arrestation de Pape Alé mais le contenu li nekk ci biir document bi contenu bi est ce que réellement dëgg la wala wala du dëgg aussi ndax ñoo ngi si tudd ay procureur ak ay kilifa. waaw alors man je mënuma ci wax ndax mënuma ci wax parce que moins information yu yu yu yu ñu recoupé yu a recoupé kon ñu dem ci euh, quarante cinq milliards yi ñuy wax ñoom sax nañ dañ ko classé secret défense hmm. te loolu ab journaliste moo ko fësal hmm. euh, te ñoom nee nañ secret défense la hmm. te journaliste bi ma ngi woon Sénégal gii di dox ay itteem euh, waaw loolu moom doy na waar moom <laughs> loolu moom doy na waar trop mais foog naa ne dafa mel ni gii dañoo xaw a tiit et dama ragal ne malheureusement situation bi ñu jublu nii muy Sénégal qui devient un pays pétrolier gis ngeen ne bu yàggul sax euh, on nous a inscrit nañ Sénégal ci pays pétrolier wu Afrique yi euh, loolu dafa mel ni ki dafa xaw a mel ni lu dofloo nit ñi homme homme politique yi surtout te ragal naa ne fi ñu jëm nii élection yu méttee métti métti la ñuy la ñu la ñu la ñu risqué de de d' arriver c' est vrai que dañuy faral di wax ne wooy souvent dañuy wax Sénégal euh, élection yi dina métti bi te dara du ci métti mais dama ragal ne bii situation exceptionnelle la parce que dafa mel ni nit ñi dañoo gisatul dara lu dul alal bii di jógee ci pétrole bi te li muy wane encore mooy euh, dafa mel ni seen bopp la ñu jiital au lieu ñu jiital intérêt population. parce que boo jiitalee. ndox la élection yu métti lay doon. non parce que euh, gis ngeen ne président de la république waxagul ba léegi euh, une bonne fois pour toutes ndax day nekk candidat wala ndax lu nekk candidat te loolu jàpp naa ne c'est ça stratégie stratégie am la il a raison bu ko neexee mu bañ a wax mais dama jàpp ne troisième mandat normalement discussion sax am waru waru cee am te te te jàpp naa ne sénégalais du ñu nangu mu nekk candidat wala bu nekkee candidat ba pare jalgati comme ni niñ ko fi ko fi defee man tey jalgati pour toog ragal naa ne bu boobaa euh, yëf yi dina dina métti parce que euh, tey euh, gis nañu ñi wër président de la république ñu ci bëri ñu ngi jalgati jalgati bu doy waar boo jàppee post boo jàppee affaire u 45 milliards yi ak yeneen ak yeneen du ma tudd ay tour mais ci ci ci ci agence yu bari gis nañ fi ay jalgati yoo xam ne ay détournement ñuy wax ay milliards yu dul jeex te li ma jeexal par dizaine de milliards la te président du ci wax dara boo ci tegee nag jalgati yi ñuy def ci affaire kayit yi ci affaire suuf yi dafa jéggi dayo léegi nag ñu teg ci problème contrat pétrolier nga xam ne wax nañ ko waxati ko te gisaguñu loo xam ne euh, vraiment euh, état bi mu ngi koy dox wala gouvernement bi mu ngi koy dox pour jéem a rectifier le tir à part le fait que def nañ fi une loi sur le contenu local boo xam ne ah dañ ko teg pour jàppale euh, entreprise sénégalaise yi mais est-ce que réellement derrière ñu ngi rectifier le tir kooku man de wax dëgg euh, gisuma lu ma leer la ci ci ci biir. d'accord yaa wax sànq ci élection présidentielle euh, Macky Sall mi nga xam ne waxagul position mais cas Ousmane Sonko ak présidentielle 2019 ndax dafa am ñoo xam ne ñu njort ne état bi daf ko bëgg indil ay gàllankoor ñenn ñu njort ne bu dee état bi gàllankoor na ko euh, Sénégal yi mën nañu ko lànk ñenn si ñoom. bon bu ko bu ko bu ko état indilee ay jafe-jafe pour mu bañ a nekk euh, président de la république xalaat naa ne mun na indi ay rëmu ay rëmu yu yu am yu am doole parce que tey bari na ay sénégalais yoo xam ne même bu dee sax du majorité bi mais nekk na en tout cas dayo bu am solo te ragal naa ne ñooñu du ñu nangu euh, ñu faagaagal euh, candidature seen seen leader man li ma xalaat mooy président de la république moo war a euh, xam ne moom Euh, appam jeex na te bu jéemee forcé day daanu te nar narmelu bu bu bu bu métti lay def dina jéem a forcé dina jéem a résister bu boobaa te bu boobaa xeexoo dina am deret dina tuuru te jaru ko. mais parce que de toute façon de toute façon dafay dem. mais est-ce que jotul kon euh, kilifa yi wax ak ñi nga xam ne bu ñu waxee ñu déglu leen. waaw mais peut-être que kilifa yaa ngi koy waxal ci suuf sax parce que xam nga kilifa yi duñu bugg di wax loo xam ne euh, ci biti lay dem ci rajo yi ak yooyu mu indi ay jafe-jafe mais am na xalaat ne am nañu ay kilifa yu dëggu yu nekk ci réew mi yoo xam ne du ñàkk ci biir seeni salon ñu ne ko ah euh, lii de yow def nga sa ñaari mandat moo gën mu nga mun a nga dem rek nga jéem a préparer kenn koo xam ne ah. xañ na dina mun a dina la mun a wutu ci candidature Euh, mais loolu mënuñ koo fësal ci biti parce que ñoom ay nitu dal lañu. du ñu du ñu wax loo xam ne dina mën a indi fitna. d' accord Bruno D'erneville état bu Sénégal def nay euh, samp na gouvernement bees jiital Amadou Ba teg euh, def ay concertation pour wàññi dundu gi am na ay produits yoo xam ne wàññi na ko mais ba léegi nii détaillants yi ñoom wàññiwuñu yow lu ci sa xalaat. lii ci sama xalaat mooy lii li muy firnde. mooy gouvernement bi tey fi mu tollu mooy li muy doxal wute na lool ak li population yi di dund li muy doxal population yi amul ci benn confiance def nañu ay décrété nañu ay réduction <laughs> loolu moo doy waar dañu décrété ay réduction dafa mel ni ñu ngi ci dëkku euh, dëkku soviétique yu njëkk yi nga xam ne dañuy imposer ay ay prix loolu mënta am loolu mun ta am parce que économie bi dafa am nu muy doxee au niveau des li ñu indi mooy ay problème ci biir nit ñi rek ndax nit ki mënul louer jékki-jékki euh, euh, locataire bi ñëw nekkoon ko non non da appliquer lii bu bu ko defee d'accord il va l'appliquer mais du yàgg mu ne la kon léegi da ngay libérer ah, ma ut keneen dama soxla sama kër du indi nga jafe-jafe ki nga xam ne moo nekkoon locataire bi kon wax ji du noonu te man waxoon naa naka la ñu mun a def ba maîtriser loyer yi loolu du un décret bu ñuy génnee nii rek application immédiate déedéet loolu organisation la dañuy xool d'abord une structure intermédiaire boo xam ne moom moo nekk ci diggante locataires yi ak bailleurs yi kooku nag mooy organiser locataires mooy organise bailleurs yi d'abord ba xam ne bailleurs yi il faut ñu tënku ci ay règles yoo xam ne ñëpp dañ koy nangu. Uh-huh. règles yooyu xam-xam la xalaat la ñu identifier d'abord ñan ñooy bailleurs officiels yi ñu identifier ñu ñu ñu classifier genre logement yan yan yan la ak fan la pour mun a wax ne ci ci ci zone bu nekk lii mooy plage ou location yi. même bailleurs yi aussi. comme sa kër force da nga war a def déclaration. Ah, am ah, commission euh, mu ngoog léegi deful déclaration da nga def faute. mu kon gis nga lii système bi avantage beneen avantage bi muy am mooy day yokk xaalis sax ci gafakawu fisc bi. parce que bu boobaa nit ñi dañuy obligé déclarer wu te ku déclarer wul sa location. bu ñu la da ngay violer loi bi te bu ñu la boolee moom euh, xamal ne euh, yàqu nga donc ñoom ñëpp ils vont être obligés de s'aligner te bu booba ay plage ay plage de prix mooy am te plage de prix yooyu. Uh-huh. jarul a xëccoo jarul a xuloo da ngay xool génne tableau bi ne yow ci zone bi nga nekk d'ailleurs ñoom sax balaa wax di am ñoom ñooy affiché ne man ci zone bi laa nekk mu ngi nii plage yaa ngi nii. Uh-huh. kon gis ngeen ne loolu mooy xalaat. bi nga xam ne bu ñu ko togg tegee dina mun a maitriser prix yi. te du indi problème ci biir nit ñi. kon bu nañu xam ne réduction de la cherté de la vie nekkul loo xam ne dañ koy décrété nii rek. ne par force léegi nii la war a doon te doo ci def benn étude. d'accord affaire bi xam-xam la affaire bi pas-pas la affaire bi euh, méthode la te méthode boobu nag malheureusement moo leen manqué man de wax waxoon naa affaire loyer yooyu ci biir élection législative yi foog naa ñëpp dégg nañ ko. c'est dommage que laaju ñu ma man sama avis pour mu mun leen conseiller surtout que man ci wàllu tabax ak bâtiment ak construction loolooy sama métier. kon nag munoon na leen ci jàppale mais euh, comme doxale nañ nii il vont voir que résultat yi amul ci wàllu nag euh, meññeef yi gis nañ ko commerçant yi bañ nañu ko nee nañu mais lii munul am parce que. il faut ñu xool structure des prix yi correctement ba xam ndax lii mun na am ndax mun nañu réduire comme ça le kilo de tel wàññi ko euh, de temps et cetera est-ce que loolu c'est pas juste des affirmations politiques man dama jàpp ne c'est juste encore une série de déclarations pour wan nit ñi ne ñun de ñu ngi jéem waaye bu ñu demee ba ci cappandaw ga nag comme yëf ñoom xam nañu ne du réussir dañuy dem ba ci càppandaw ga ne ah gis ngeen ñun de amoon nañu yéene boobu mais nit ñi ñoo ko deful mais c'est pas que nit ñi ñoo ko deful yow yaa amul méthode bi pour que nit ñi def loolu. d'accord jërëjëf euh, Bruno D'erneville ñu jeexal rek ci euh, deux minutes ci assemblée nationale démb la euh, bërki démb la marathon budgétaire bi commencé budget six mille quatre cent milliards. Euh, yow noo gisee budget boobu ak euh, député opposition beeg pouvoir bi nga xam ne mayentewuñ dara assemblée nationale. waaw euh, budget boobu budget d'anticipation la parce que ñoom gis nañu ne fii ak année prochaine normalement ressources pétrolières yi dina mun a commencer dugal dara ci gafaka. six mille milliards état bi six cent milliards lañu wax. donte sax euh, waaw euh, waaw euh, bon man déggoon naa ne ay cinquante et quelques milliards la ñu waxoon mais peut-être que. yokk nañ ko ñu ne dégg naa ministre bi nee na six cent milliards par an pendant trente ans. waaw mais est-ce que est-ce que loolu est-ce que loolu à partir de année bii la je pense que du à partir de deux mille vingt trois de xam naa ci at yi ci topp lay doon mais dans tous les cas. donte sax dina am ay ressources additionnelles yu am solo yoo xam ne day jógee ci pétrole bi warul tax. ñuy dugg ci ay yenn endettement yoo xam ne euh, ci ay ay projet puukare wala ay projet yu amul rentabilité lay doon te malheureusement malheureusement projet yu bëri ñuy def ay projet yu xaw a ñàkk rentabilité la parce que dañ ay projet pour fësal ne ñu ngi liggéey ñu ngi def bon beex euh, BRT yu mel si c'est bien boo mais prix yi boo xoolee prix yi ñu jëndee BRT tey boo ko méngaleeg li am ci yeneen i réew yi par exemple ko ay Côte d'Ivoire ak yu demee di nga gis ne en fait ñun dañu surfacturé maanaam prix yi ñu ko yi ko yi ko jëndee dafa ëpp kon loolu li muy wane xaj na mooy am na lu ci li ci li li ci suuf beneen bi mooy euh, euh, TER bi ñun wax nañ ko waxati ko li ëppoon solo du woon def loo xam ne Dakar Euh, Dakar Diamniadio la yem donte sax euh, rafet na euh, et cetera ah, peut-être vi am na vitesse mais rafet na am na vitesse waaye mu ngi yem à trente quarante kilomètres waxul vraiment loolu amul amul intéret li li li mënoon nañu pour six cent à neuf cent milliards def loo xam ne dañuy defaraat raay bi ba Kidira. Ah, euh, ci euh, euh, dëkk bu ne dëkk bu mag bu ne ñu def fa gaar te xam ngeen ne gaar day indi koom-koom ndax nit ñi dañuy ñëw di fa jaay et cetera mu mu mu mu lawal alal bi ci biir mu tasaare alal bi ci biir réew mi loolu yëpp nekk na loo xam ne peut-être amoon na intérêt ñun li ñuy man li may wax mooy léegi nañu jiital ay projet d'investissement yoo xam ne dafa am rentabilité soo mu rentabilité day gën a bëri ah bien sûr mais man man man man sax je ne suis pas bokkuma ci ñi nga xam ne dañu ragal dette non non. moom dette kenn ragalu ko mais dette boo xam ne da nga koy dugal ci priorité dette boo xam ne. voilà euh, loolooy wax ji. Hmm. loolooy wax ji dette bi moom fekk ñu ngi koy teg ci yoon maanaam mu doon dette yoo xam ne il faut que ce soit soutenable di déjà maanaam ñu mun koo di ko fay te duñu duñu xoj. benn ñaareel bi mu doon det boo xam ne ak alal bii di ñëw dinañ commencé di ko mun a wàññi bu waxtu wi jotee mhm. yooyu yëpp nekk na loo xam ne foog ñu seet ko mais itam il faut que mu doon ci ay projet yoo xam ne projet bu ñu ci teg rek day demal boppam te dina mun a am rentabilité. jërëjëf euh, Bruno D'erneville euh, ñu lay sant di la gërëm. waaw maa leen di delloo gërëm bu baax di kontaan ci invitation bi Abdou Khadre euh, di leen wax ba beneen. incha allah jërëjëf Bruno D'erneville mbokk yi moom mooy leaderu parti pour l'action citoyenne moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM. muy am samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.